yaakaar naa ne eh, journaliste bi nga xam ne am na xel mu rafet xel mu baax am na jikko ju baax te si dara boroomam yaakaar naa ne dana sàmm la muy bind ak la muy wax. kazaalika sabaan bi it noonu rek la dem kon na ngeen ngeen góorgóorlu bu baax <laughs> xam ngeen xam ngeen dëgg xam ngeen fen xam ngeen luy dëgg xam ngeen fen hmm. ngeen góorgóorlu ba luy dëgg rek na ëpp ci seen seen i wax ak bind ak seen i yëngatu la dul dëgg na ngeen góorgóorlu bu baax di ko wattandiku seen kéem kattan. jërëjëf Mbacke foofu rek laa ci yem jërëjëf Mbacke jërëjëf. foofu foofu rek laa ci yem. noonu dong la demee bu leen jombale dara bu gisul rek ñu ne nga defe ne da da moom taxawaayam bi daa jomb déedéet. waaw jëmukaay wutukaay benn yàlla rek la yàlla rek fi nekk. waaye dafa moom moo waxaat boppam ne ki gën a tedd mooy ki gën a ki gën a ragal yàlla wax ji jeex na. jërëjëf sëriñ ak taalibe bi foofu rek. jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf.